Bienvenue sur Salam Vision. Thank you. أعوذ بالله من bi الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد نبيه وعلى آله internet yi nga xam ne yéen a baaxoo suivre seen télé bi nga xamante ne mooy Salam Vision di jàmm ju ànd ak gis ngi am mbégte bu baax baax baax dellu soit ci suñu beneen numéro ci les polices politiques les nag bu ñu ko waxee mooy lépp loo xam ne àdduna ci politique waaye tey réew mi jaxasoo na coow li bëri na ndax kenn ku nekk ak na nga xamante ni moom lay utiliser le mot politique ci définition bi nga xamante ni moo ko arrangé mais ñun loolu itteel li ñu itteel mooy tey li nga xam ne jàng nañ ko ci politique xam ko ci politique ba tax ñu koy waxtaanee ba indi leen rubrique bi nga xam ne mooy les polices politiques loolu lañ bëgg a waxtaanee saa su ne nag ñuy jóg di dem ci ay bopp ko di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo ciy yëngu wala ñi nga xamante ni tam donte buñ ci wul itam ñu ngi bokk ci ay gox yoo xamante ni tam mën te ñàkk politique yi te kenn ku ne xam ne réew mi ñu ne politique daf ci am wàll woo xamante ni macha allah rabbi tubarkalla moom mënuñoo dugg dund wala ñu xëy soo ba jant bi sot ak ñu ko waxtaanee rawatina nag guddi yi ñu toll ndax nee naa euh, li tax guddi yi ñu toll mooy ñaar ñi nga ñoom la ñuy tudd ci réew mi te nee naa bu weesoo ñaar ñi duñ tuddaat keneen wala itamit bu ñu tuddaat keneen day fekk ci ñaar ñi keneen kenn jóge fi rek keneen ñëwaat wutu ko bu ñuy wax ñaar ñi nag du weesu Macky Sall le président de la république actuelle ak ki nga xamante ni tam mi ngi waajal boppam ngir 2024. mu uutu ko ci toogu boobu nga xamante ni moom la toog coow li nag bëri na loolu muy le président Sonko di Pastef tey ma dal dalal ay mbokk taalibe ay xarit du ma leen di yaay politicien mais man je les appelle pas des politiciens mais de développement ñoo xamante ni seen xëy seen yëngu seen dal seen lépp ñu ngi koy jëmale lépp loo xamante ni mu ngi jëm ci social ñu ngi jëm ci développement ci loolu laa leen xam moo tax duma leen woowee ay politique ñoom nag bu leen neexee ñu woowee seen bopp ay politiciens mais man je les appelle pas des politiciens fi may tàmbalee rek euh, ci sama ndeyjoor maa ngi toog ak euh, El Hadj Ibrahima Fall ci suma maa ngi toog ak mon président à moi personnel <laughs> monsieur Mohamed Lamine wax dëgg yàlla ak ñu beneen gan goo xamante ni tam aada wax dëgg yàlla ñu bëgg waxtaane lenn ci li nga xam ne mooy actualité réew mi waaye tam lenn. ci jëf yu ñaaw yi nga xamante ni am na ñoo xam ne ñu ngi làkkatoo les réseaux sociaux di ko def bokk na ci nit def déclaration wala def soppi wala def euh, interview ñu jël ko dagg ci benn séquence jël ko collé ko ak yeneen séquence yoo xamante ni def ko wax ko ngir yàq jaram wala tilimal jaram wala ngir jaxase ko askan nee naa loolu bokkul ci politique te loolu warul ci ñun rawatina ci réew mi ñu nekk. li ñuy def rek mooy dañuy dañuy lay bàyyi kenn ku ci nekk mu nuyoo ñu doon a dugal li nga xamante ni mooy waxtaan bi incha allahu rabi imam ñu ngi lay nuyu di jaar baax waaye di la dalal ci li nga xamante ni mooy les coulisses politiques. asalaamaaleykum. ñu ngi lay nuyu. ñu ñoom suñu borom subhanahu wa taala borom baal. alhamdulilah defal ñu tawfiq. defal ñu napp. ñu ngi aada. ñu ngi Mouhamad Ba ñu ngi fi kii ba. wala ñu ngi sama ñëpp daal. waaw loolu daal am na solo. ñun du ñu ay politiciens. wala ñoom fa am na nekk. man je ne suis pas je ne suis pas le politicien. waaw activiste laa ne wax ci réew mi laa juddoo. comme lépp cent pour cent sénégalais la. Mm-hmm. nationalité sénégalais. Mm-hmm. koom mm-hmm. citoyen. waaw véritable <laughs> citoyen. jërëjëf macha allah jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax véritable citoyen cent pour cent wax dëgg yàlla ñun moom loolu la ñuy tiitaroo macha allah waaye itam ci sama thème mooy ñu ma làndatee ñaar fi may tàmbalee rek mooy le futur nekk comme ni ko jëwriñu waxee. Mouhamed Lamine ñu ngi lay nuyu di la jaar waa ji la dara ci les polices euh, salaamaaleykum. Euh, maa ngi leen di nuyu bu baax. vraiment di rafetlu li nga xamante ne émission bi. émission bi nag wax na lu bëree bëri. parce que titre bi rek. ça dit beaucoup de choses. mooy les politiques politiques. te wax nga ko léegi ci sa biir wax. donc loolu lu mën a ñàkk la ci vie bi nga xamante ne moom la doomu aadama di mëne ba doon fiy jóge kon maa ngi nuyu internet euh, Salam Vision yëpp vraiment di bu baax di am aussi benn suggestion rek bu may joxe ndax Salam Vision yaakaar naa c'est international te tur bi macha allah dafa nekk loo xamante ni moom la réew mi soxla surtout fii ñu dina xool ci salaam mm-hmm. waaye toll ci vision mm-hmm. kon yàlla nañu yàlla may salaam jooju mm-hmm. ba pare may ñu clairvoyance boobu di vision kon maa ngi leen di nuyu di nuyu aussi sama ñi nga xam ne ñoom laa nekkal fii muy El Hadj Fall di sama imam ndax imam rek la koy wax di nuyu aussi sama goro maa ngi leen nuyu Sam di la bëggee vraiment di kontaan ci sa liggéey comme ni ko waxee rek ay acteurs de développement lañu te euh, ragal bi ci te incha allah duñ ci mës a dellu ginnaaw mm-hmm. di nuyu aussi ki nga xamante ni moom laa tuddee sama droit droit di sama secrétaire di aadama ndax bëri na lu may def dama ci àndante ak moom mm-hmm. su jaadoo mu ne ma jaadu na su jaadoo li aussi du ma la gën a rectifier te noonu la ñu ànd ak ñun. kon vraiment kontaan naa bu baax a baax. di xaar rek ñu yaatal incha allah incha allah mosoo yàlla. Adja ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yow di la dalal ci biir jotaay bi nga présenté wu rek man te li olof naan fekkee ma ci boole. waaye yow bii fekkee boole wu la. comme la di la bitim nekk. son bras droit son secrétaire général. Mm. kon dafa am lu ñu seq loo xam ne complicité mënul ñàkk ci suñu diggante. Mm. Mm. salaamaaleykum wa rahmatulah. Sam ñu ngi lay ziar bu baax ñoo ngi teewee émission bi di ziar imam bu baax macha allah suñu suñu xarit suñu mag suñu lépp daanaka xamante ni yàggul sax waaye mel na ni lu ci teewee day def yàlla ak yu bëri. di nuyu euh, Mouhamed Lamine daanaka bu waxoon rek jaww sax nga ma koy jàng ndax moom bu waxul rek man maa yor daal te moom bu xasee ba wax moom daanaka waxtaan ak quoi. surtout kii ak gerte la kàddu gi benn la. voilà noonu la demee nag <laughs> di bàyyi xel di. Euh, rafetlu présentation bu baax. Mm-hmm. di delluwaat rek ci li imam wax wax macha allah. bi ngay policier dëgg-dëgg. waaye dëgg-dëgg yi moom la. Mm-hmm. parce que dans cette vie bi ko pensé dina xëy on peut pas s'emparer de la vie politique. te moom mi ngi participer ci développement bi. Mm-hmm. def fii lu mu lu mu deful. au retour tey nit waaye moom moo fi def li si mag yi defal. parce mm-hmm. que créé na société employé na ci mm-hmm. participer ci développement bi. Mm-hmm. te la politique ne peut pas s'emparer de sans la li Bougane Gueye di bàkkoo chaque jour moom dafa nekk ci yoon bi. te fi la nekk à chaque fois. kon politique ñun dañ koy jëfe dañ koy def ci saa suñ tool. réew mi dañ am di xaar ba mu dugg au du sujet ñu mën koy développé ay dañ doon jërëjëf Ada macha allah am na solo lool tubaarkàlla wax dëgg yàlla li nga wax ku la dégg xam ne tam am na notion boo am am na tamit loo xam ne yaa ngi ko ci dund macha waaye ñu njëkkanteeg euh, waxtu wi fi ma bëgg a tàmbale rek mooy gannaaw ñun ci réew mi ñu nekk dañuy wax ni c'est un pays laïque mais man je refuse catégoriquement et je refuserai toujours catégoriquement parce qu'on ne peut pas avoir quatre vingt neuf pour cent ou bien de la population sénégalaise qui sont musulmans ñu ni c'est un pays loolu waxi démb la waxi politique la woon waxi pexe la woon moo tax mbooloo man d'accord ma li tax loolu tam mooy li ma wax mais imam ma bëggoon tuuti ñu laaj la ci alxuraan ak diine lan la wax ci politique ak lan mooy politique ba pare ñu loolu mën a wéer loo xam ne ndax ñu mën a am au moins ouverture parce que tey jii bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci politique te ñun jàng nañ ni la l'islam politique bokk na ci li ko taxawal mais peut-être que c'est la façon dont les gens prennent ce que c'est la politique loolu mooy <laughs> su coono bi ci am yow ngi lim ñu tuuti l'islam li mu wax ci politique ak lan mooy politique waaw politique bu l'islam hmm. bu dee politique hmm. bii Sénégal bi hmm. mooy politique te mooy produit de l'islam def na kenn ku ne ñi nga yore sa ko sax produit ndax am na ñoo xam ne am nañu guddu kaaf jëla tey ci politique sëp kan la moom ngay fexe ba taxawal kaaf dem dëgg ba nga yegg ci usi moo tax l'islam sallallahu alayhi wa sallam daf daan politique ndax am na xarit bi ñoo xam ne ñoo jaayante te du ma leen tere li li ma leen tere mais boo seetloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom yoon bi nga ñëw da nga woote da nga waroon tere parce que da doon tere mooy waaj bi moom mag xeex ak ñoom nekk ci baraw am ne loolu xam ne léegi moom yëf yi mat na nga xam ne mooy kii woote moom nga ci boppam dafa dëggal siyaas yi mooy preuve mooy réew mi faaw mu am ku ko jiite faaw mu am woote mm-hmm. mu mel ni Souleymane dafa amul nanam dañ ko fee fekk ñu ngi ko fee jëlee te politique bi su jógee ci réew mi réew mi gis. loolu moom ñu ko xam ndax nit ki nag yàlla mën na leen bàyyi ci biir muy def kenn koy lu ko def. mën nañu yàlla mën na ko. loxo la. Hmm. waaye nag bis bu politique bu lislaam jugee. Hmm. loolu moom ñoo xam ne réew mi jeex ndax politique bu lislaam ñun dañ koy xeex naan politique da ngay dégg naan politique amul lislaam politique du lislaam te bis bu politique bu lislaam jeexee hmm. mais guerre dafay def. foo déglu si am mooy jaww bi ñuy def waxtaan fii rek toujours ñu ngi xool luñ teg lu baax moo tax suñu borom subhanahu wa taala dama ko doon ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana da nga woote sa yoonu borom ci xikma ci wax rafet ci xarante xel mu sell ak wal maw'izatil hasana mooy waaraate bu rafet. Mm-hmm. da nga waa nit ñi gën a waxtaan bu rafet. kii ne Macky kii ne Sonko nga xamante ne Sonko Macky ay mala ak la ñu la xam parce que mu ngi ñëwee si ñaari mala donc ñoom ñaar ñëpp dañuy xeex pour Sénégal ñu naan kii ne ñii la kenn ne kii ko bëgg kii ko bëgg ñoom ñaar ñëpp ñu am xeex plus de sax mooy nag léegi li des mooy kàllaama kenn ku ne mooy tooj ooy sa bopp ja nax ba kay waaye nag ñoom ñaar ñëpp kenn du gañ Sénégal yi de kon ñun lenn mooy suñu nit mm-hmm. Sénégal am jàmm am ndam mm-hmm. maanaam ñu fexe ba julli yëpp jëm yàlla mm-hmm. parce que fi mu toll nii yàlla na les quatre-vingt-dix-neuf pour cent musulman mm-hmm. mais ñu doon ne dégg ñu coow dafa am beneen diine bu coow ci <laughs> wallaay amul dëgg rek a neex yàlla amul ñu ni nee na mais ñu def ñu coow suñu biir mooy xaarante mooy yàqante mm-hmm. te pourtant ñu doon ay jullit bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne jullit bu saaga borom jullit jullit xelal borom jullit wax ju ñaaw sax la wax lu ñaaw sax ju jógee ci jullit jëm ci moom. te jullit du fen jullit du fen te buñ demee ba léegi danga nal fen waaye xaraamal wax ju rafet ak dëgg. ba dëkk bi léegi wax wax ju rafet kaani la ma ne dama doon mos rek waaye kaani bi sax jërëjëf di macha allah ndeysaan euh, euh, <laughs> doy na waar euh, nee dama doon forcé waaye kaani gi tax na waaye nag mënta ñàkk bañ a tax ndax li mag ñuy wax rek ku bëgg akara xaw ma ñeme kaani te te te leer na ba ba leer na ñu bu doon sa akara yi bopp kese la no doolaal kaani ga loolu wér na ma li may wax itam je parle bien et je fais très bien les mots. je mhm. parle en connaissance de cause. non ma doole si de yaa ma yar. Mhm. ma doole si yaa ma yar. dëgg la te xale naa ji. te su may doon mën naa dafay sëdd. Mhm. te ñaan naa yàlla say doom ma doon seen maam. kon àdduna benn. ñun ñoo war a individuel. agrément ci sa famille. business dañoo affaire de politique. politique c'est l'affaire de business dañ koy waxtaanee bu fexe ba nii nag mbirum xaram maanaam mooy mbooloo lépp kay te dañ ko def intérêt individuel te nag Sénégal loolu fi bu bëri dañ ko def parce que intérêt individuel la mm-hmm. te politique c'est la vérité en commun parce que ñëpp ko bokk réew la boo xam ne amul bàyyi kenn mm-hmm. ku ne intérêt en commun dañ ko war a waxtaan mm-hmm. teg ko ci kot kenn ku ne gis ci boppam ku ne gis ci boppam waaye bu ñu bëggee yëpp aati moo ko moom du sotti loolu mooy politique de l'islam politique de l'islam mooy mooy ku ci boppam koo xam du jullit moo xam du jullit maanaam lislaam dafa maanu mhm. lislaam dafa maanu yàlla ki bokk yem ci leen nit ñi wax naan euh, euh, dëkk bi dëkk lay dégg bi dëkk lay cent pour cent la te maa laa wax assemblée nationale bi kon mën naa ne moom fi nekk nañ ndax yàlla moo leen jox ci cëram cër boo ne yàlla ne yéen jullit ñi di ngeen d'accord ci seen biir ba sa xool d'accord kon yàlla xam na xaaral ci wax moo tax kan sax xaas bu am doole bàkkaar la boo xam ne parce que man mënu maa def ensemble kenn du ñun mënu faa def kon baat bu ñuy fete bu ñu ko dajalee ñun ñëpp yàlla ne maa ci loxo loolu téere la. <laughs> macha allah. d'accord mënu mënu mënoon a ñàkk bañ a ubbee bi parce que li ngay wax fi mu ne nitu daara. tey bi ñuy wax politique. nitu daara fii mooy politicien. parce que tey man ñooñu laa jàpp ni ñoo xam li ñu valeur politique. macha allah ñu ngi ci ñëwaat parce que am na ci leneen ak leneen war a ñëw mais mais mais futur maire. tey bu ma lay laaj ne la tey bii naka nga jàngatee système bi. la façon de faire bi am tey actuellement nii ci biir réew mi ak ci bitim réew lépp en grosso modo par ci suñu biir ñoom Sénégalais lan la ma ci mën a indi ci eh, waaw <laughs> yaakaar naa laaj ma question bu am solo hmm. question boo xamante ni actuellement yaakaar naa mooy le débat du jour xanaa am ci xol bu naqari am ci loo xamante ni neexuñu te amuñu fu ñu koy jooytu lu dul di jéem a conscientiser nit ñi ci li imam doon wax léegi mooy il faut ñu xam politique c'est quoi la politique d'abord xam nga problème bi mooy ba léegi dañu xam c'est quoi la politique du lu araam mm-hmm. mais ni ñu koy defee moo tax mu dem ba mel ni lu araam te araam ko ni ñu koy waxee moo tax kenn góor bu ci nekk ragal la cee dugg ngir ragal tuuma parce que léegi dañu lay tuumaa boo duggee ci politique rek dana sa der yàqu na te pourtant war nga dugg ci politique avec les mains saines waaye génn ci avec les mains parce que bu fekkee liggéeyal nit ñi wala liggéeyal yàlla moo la ci tax yaakaar naa war nga cee dugg defee ci noo xamante ni tey bu ko gis ne yaa xayti ñun kat lii lañ doon xam mais lii ñu gis dalul xel te li nga xamante ne moom la ñuy gis dalul suñu xel yi bis bu ñu toogee seetaan hmm. ñu nit on est responsable de hmm. tout ce qui se passe dans ce pays effectivement on n'a pas le droit de rester croiser les di toog di xaar non dañuy taxaw résister hmm. am na benn baat bu may wax aada dama ci tooñ léeg-léeg xab faata xab la ñu ne dajji nañ seen tubaab bi ñu ne daf nañ dajji jénge yi on est dans ce moment il fallait que xam ne réew mi suñu réew la l'avenir c'est nous moo tax may faral di wax ne le changement c'est nous ñu ñoo war a taxaw temb ne lii ci am ñu xam ne jaar yoon du dëgg te du yoon ñu ñëw taxaw xeex combat bi nag ku ragal ku lay yàq doo ci doo ci dara doo ci gañ ah mënoo ci ak gañ ndax say bañ say jege ñaale ñoo xam ne yaa leen gën judd yaa leen gën jikko li nga def ci lu baax defuñu ko ñooñu ñooy osé devant tout le monde taxaw di la yàq te kenn du la rectifier ci ñi nga xamante ne xam nañ sa démb xam sa tay waaye heureusement pour nous waaw ñun ñi nga xamante ne ragal ñu ku ñu xas ragal ñu ku ñu wax ñu ñaaw ragal ñu ku ñu wax dara waaye ragal nañ leen mooy li ñuy jiiñ wala li ñuy tuumaat ñu fekk ñu waaye du ñu bàyyi bukk du ñu baisser les bras jamais de la vie rawatina bi ñu nekk du ñu nangu kenn ku ko salfaañ te loolu dañ na tay parce que li tax mu dañ tay mooy kuréel bu nekk suñu ginnaaw nga xamante ne ñëpp ay doomu judda caare kaw nañ ne pare nañ pour xeex injustice ak yàqu-yàqu politique bu fi nekk ñun de moom ñu dinañ taxaw ba mettre maanaam train bi mm-hmm. dinañ ko awale ci train bi duñ ko jëlee ci train bi ci raay bi di ko yóbbu ci tànk donc kon système politique bii ma gis loolu jara réorganiser la hmm. amoon na organisation mais dafa nekk ci désordre pourquoi dafa nekk ci désordre mooy kenn ku ci ne yaa ngi waxee selon ni nga ko gisee selon fa nga bokk lu tax ñu bàyyi ñun la bokk hmm. pourtant dëgg la appartenance bi mënul ñàkk. Mhm. kenn ku ci nekk am nga fi nga fal. waaw léegi nañu wax li nga xamante ne moom la bokk ñu ñëpp. te li bokk ñun ñëpp mooy réew mi. Mhm. lan moo tax ku jub ne da ngay wax ci ñu ne amoo droit wax lan moo tax li ñu bokk amuñu kenn droit wax ci. jiital ay nit ba pare mooy oto bu paan rek. léegi nag terme yooyu ñun la ñu jub ñun ndaw ñi pour changer ko. Mhm. ay politiciens oto bu paan lañu da ngay pousse après bàyyi leen ñu dem. buñ ñu tàkkee daw bàyyi la dëgg la man mii fuus naa ay nit ñu daw bàyyi ma waaw si tool bi dama fuus ba sonn dootuma fuus kenn dañuy fuus suñu bopp pour <laughs> dem waaw parce que nag dañu waxante dëgg hmm. xam-xam bi am nañu ko hmm. courage bi am nañu ko hmm. donc kon lan moo ci def dañ dem tàllal ñu loxo ñoom ñu lu ñu tuuti damay revenir tuuti ci imam parce que naa ko démb bi ñu demee daaru ci màggal daaru bi di profité bi vraiment gërëm ahlu muridiya bi yëpp rawatina waa daaru jaarale ko ci suñu bunt di Serigne Amsatou Mbacké nga xam ne moo ñu invité woon ñu dem mu dalal ñu dafa ñu ñu rafet dama fa toog ak ay kilifa ñu waxtaan mën na leen politique bi bu yàqoo yéen ñii di nitu diine yéen a ko yàq parce que ci waroon dugg seen implication moo des ndax li tax seen implication euh, seen implication des mooy li ñuy diaboliser yëpp naan dagan naan araamul xëy na woon euh, réew mi jege politique leen mu a wax li araam ak li dagan ba ñu xam ko mais tey ñun xàmmeewuñu li araam xàmmeewuñu li dagan su leen bi yëngoo nag ñu daan ne ana sëñ Sidi Muxtaar na wax sëñ Moustapha na wax sëñ Mbaye Sy Mansour lu muy xaar ñu ngi sëy te sëñ Mbaye Sy Mansour doo ko tudd mukk lu dul dana am problème boo jël di leen du la yëg waaw doo ko daal ñooñu ñu bëgg bu réew mi amee problème ñu taxaw ne dalal leen ah. te waroon na ñëw dalal ko avant réew donc vraiment am na ñu bu ñuy wax dañ koy wax ak cœur nañu yee nit ñi naxaate bi dafa doy et puis c'est que la ñu hypothéqué ah deux mille dix-neuf on a été hypothéqué depuis deux mille dix man nag yàlla dogal na damaa teel a xam ne dañ ma tay ma dugg nag di laaj moom prix bi ma fay lay c'est combien. pour nga xam ko au moins. waaw au moins buñ ma mënee fay ñu fay ma. ndax ko mënul. dafay man man laa mën a def. donc noonu laa gisee bu <laughs> ko ñaawlu. Mm-hmm. Mm-hmm. boo ci boo boo faree ci gouvernement bi mm-hmm. ne ñoo gën. boo faree boo faree feneen ne ñoo fi yées. sànq wax naa ko tantôt ak koo xamante ni mi ngi ci biir. mën naa ko tuddee mi ngi ci biir système bi ma ne ko bàyyi leen di wax di dégg ay extrait rek di dal ci kaw nit parce que axe du mal yaa ko doon wax léegi dafa am benn affaire boo xamante ne dañ ko tuddee axe du mal dañuy gis benn Mouhamed bu toog di wax nga dagg ca li gën a am solo ca la muy wax ba tagg ko wàcc la am solo yëpp indi ci lenn loo xamante ne exemple la ko jël pour jaxase ko fëlti mm-hmm. loolu nag duñ ko nal mm-hmm. lu mel noonu la ñu taxaw xeex ay góor yu set wicc ay nit ci réew mi bëgg leen a yàq ñu tam ñu bëgg a croiser les bras bu ko defee yàlla daf ñu duma man nag yàlla duma duma noonu jamais ci loo xam ne mën naa ko wax loo xam ne mën naa ko dindi loo xam ne mën naa ko manifester ba ñëpp xam ko yàlla duma ci duma donc kon loolu laa amoon lu may wax ci système bi que ne il faut que ñu réorganiser waat bi ñu duggee di politique li interpellé nañu interpellé ñu lu tax ngeen dugg ci politique mais dama ko définir ci lu simple mhm. dama yem ci Larousse parce la dictionnaire Larousse mhm. moo ne ñu la politique c'est de gérer la cité mhm. ñu commencé ko ci cité bi ñu dëkk waaw cité bi ñu dëkk kuy waxal yàlla rek xam ne lépp luy développement te suñu doole toll fa def na ñoo fa njëkk organiser cette ñoo ko njëkk a organiser prime de scolarité mm-hmm. don de fourniture coranique musuma ko dégg mm-hmm. te ñoo ko fa njëkk a def jënd ay téere dugal ci daara mm-hmm. leneen li tax li tax mooy gis nañ ne système bi dañ ko bëgg a yàq yamale ko ci loo xamante ni ça ne apporte a rien du tout man ba ma dalee jàng ba léegi jàng naa dëgg ba fi ma toll musuma dem fenn ñu laaj ma ko c'est au moins boobu ba léegi bakk rek naa si maa koy jullee waaw dugg ci daara yóbbu fa ay basal et tout kon ñun ñu ngi def li ñu mën xëy na nag léegi système bi changé na ba kenn ku ci nekk ragal te ñun duñu ay tàppe wax naa ko grand femme yéen nañu yar ñu fekke leen ci koñ bi gis lu bëri fekke bu ñu ragaloon da ngeen war a jël ay yar fekk ñu suñu toog dóor ñu ba pare doon ñu wax lu tax ngeen def bi donc kon grand loolu laa am lu may wax ci système bi système bi vraiment yàq nañ ko léegi ñëpp a ragal te toll ñu ci moom lu ragal mm-hmm. Cheikh Tidiane si laa dégg mu ne toll nañ ci période boo xamante ne boo amee fasu dama doxi ko mm-hmm. soo paree tëjul sa biir kër mm-hmm. dafa mel ni comme si que lii la doon wax parce que boo génnee wax sax ñu interpellé ko neneen sama sotti bi may def leer na ma ne bu génnee ba ñu gis ko dina gis ndax lu ci bëri tegal ko benn leader ne ko voilà yow dafa tendance mi ngi te effectivement man je tendance man ñëpp laa tendance ah parce que siège bi ñu toog nag ñun ñëpp mérito ñu gënuñu ma juddu gënuñu ma bokk ci réew mi te sax nag man damaa dëkk Dibétale kaw am ci ci foncier. mais en parlant de Dibétale kaw. ñu nekk fi ak maire boo xamante ni. vraiment ci parcours am. ci carrière am. ba tey li mu doon danaaw dogalu suñu borom. dafa am ñu ngeen ci liggéey. te fi lañu fay. tey naka naka ngeen dindee politique bi ngeen di dindee léegi ak ak ak ak ak voilà mhm. li war ni ngeen war a àndee sax àndee wu leen noonu mhm. lan mooy cause bi ba tax àndu leen ni ngeen war a àndee sam sam balaa mu wax moom ça nous renvoie à la sens de mhm. mooy ndaw bu ci li ñuy doxalee réew mi dañ ci am cër mm-hmm. muy ki yor ki muy ki ki am lu mu téye ci loxoom muy ki téewul dara mm-hmm. ki téye suñu boppam dina ko laaj naka mu nga yoree loolu ci li nga téye mm-hmm. ki fi muy ndaw ñu koy wommat moom dinañ ko laaj ana naka nga fi nekkee woon yow ci wàllum wuti ci wàllum amin ci wàllum lépp nu mu ki demee euh, ah, ba pare euh, euh, sëñ sëñ bi da wax naan ak mbir boo ci nekkee lépp lu mu jaral nit ki ba mu yàq ko na la jaral nga toog noonu ba ba nga defar. Ah, waaw mooy dëgg ça nous renvoie toujours à la sens de la responsabilité. Mm. ñun ndaw ñi ñun la ñuy wommat. waaye ñun ñuy wommat li ñuy wommatee dañ cee ëpp cër. suñ lañ taxaw wax nit ñi naka ngeen yoree lii naka ngeen di doxalee lii foofu lañ toll. nous devons toujours tenir notre avenir en main. nit ñi dañ cee yey te dañ cee bokk kenn duñ ñu cee yey. mais est-ce que tey loolu mooy problème bi daal Hadjibou Soumaré laaj président Macky Sall ne ko nangam bi nga na nga nangam ñu jël ko yóbbu ko fa naan loolu dugg ci. mais mais voilà mais voilà encore comment nous dirige certaines certaines responsabilités. voilà encore certaines remises en na ko nawatuñ ko ci réew mi. borom xam-xam nawatuñ moo tax lan nga ci gis avenir jàng gisatoo leneen loo gis. réew mi follaal mu ngi metti parce que ça ne renvoie pas à une remise en question en quelque sorte. Mm-hmm. sa nekk fee wax lu baax borom xam-xam la wax suñ ko téye xam-xamam. Mm-hmm. ñi war a wax waxuñu en fait. Mm-hmm. moo tax sax nit ñi dañuy remise en question ci yenn borom xam-xam yi. nawatuñ kenn. dëkk bi daal xam naa ne bi ñu war a xoolaat bëri na. te liñ ci war a waxaat ci nen ñu nen ñu tamit di aspirer di ñu diriger tamit dañ dañ ñoo war a bàyyi di nekk en soi-même. on ah. est avec avec le changement. avec comme comme comme di comme di mon mon mon frère mon frère Mohamed. <laughs> avec le changement incha allah am nañ yaakaar ni. waaw voilà parce que tam mooy li ñuy wax. ñi ñuy diriger ñëpp. ñun ñi ñuy diriger ñun ñoo leen ëppale ci ñi ñuy diriger. mais effectivement xam nga mooy sama sama gant bi. le changement c'est nous. c'est nous dama posé léegi question bu am solo. bu mm-hmm. aléatoire. Mm-hmm. ci. li nga xamante ni fekk nañ ko le premier magistrat de la commune. de Gueule Thiaroye Kao de notre frère. Mm-hmm. Mamadou Gueye. frère et ami. il est frère il est ami. Mm-hmm. et dafa am benn complicité bu am sama diggante moom. ok sama xarit su may wax ak moom dafa may déglu attentivement. Mm-hmm. te xam na ko ci qualité ak expérience bi dégagé ci ñun. mais li nga laaj léegi dafa am solo naka la ñu nekkee. Mm-hmm. sànq sama biir wax man du ma wax du ma làmbat. Mm-hmm. sànq dama ne la dañuy hypothéquer en deux mille dix neuf. Mm-hmm. en deux mille dix neuf deux mille dix ñu ñëpp xam nañ ne ñu ngi woon ci rime politique. avec coalition bu ñuy wax neneen. suñu frère suñu mag jiite ko muy Mamadou Ba. ñu préparé élection présidentielle deux mille il était contre le pouvoir. àndoon ak Ndella Madior Diouf. àndoon ak Ndella Madior Diouf ci législative yooyu en 2014 ñu jógee fa ñu pré euh, ñu euh, préparer élection 2019 présidentielle mu ànd ak Hadjibou Soumaré avec des promos euh, avec des promesses yoo xamante ne peut-être c'était non tenu venant de Hadjibou Soumaré peut-être ñu dem ba am ay inconvénients ñoom ñaar mu retiré. 2019 il nous a appelé en nous disant que ne dafay dem jàppale le président Macky Sall ndax ci cinq candidats yi à l'époque ñu ngi doon laam-laamee cinq candidats mooy dem Coupa mais bi ñu xamee ne les cinq candidats ñoom ñooy dem présidentiel mu ne moom jàpp na ne ci référendum bi ñu doon voté parce qu'il a défendu euh, le projet de a Sall en 2019 bi ñuy voté référendum du oui ou non moom mu défendre le oui te biñ ko interpellé laaj ko pourquoi tu défends le oui mu ne ci biir cinq candidats yi gis na ne Macky Sall c'est le candidat le plus idéal effectivement te avant deux mille dix neuf wax na fi Macky lu ne mhm. ñu yor extrait ba léegi deux mille dix neuf mu wooñu ndax deux mille dix neuf man bokkoon naa ci jeunes yi nga xamante ni dégguma ma rek la damm na mhm. man woote woon rek ma dem wuyu waaw ndax man du dañuy woote rek moom d'après sama expérience d'après samay qualité d'après li may dégager charisme bi may dégager ndax nit ku nekk loo bëgg ñu koy tool dañ koy ndiru ndiru ngir yàlla def la ci noonu benn ngoon am na l'adjoint du maire la Modou Matignan woo dugal ma ci oto wax ma benn secret boo xamante ni grand secret la peut-être gës dina ñëw mu génn mais tay émission bi du plateau. dama ah déglul lu ko lu may déglu mooy ma déglul aujourd'hui lii war na tax ñu jàppale le président Macky Sall ma ne ko d'accord ci noonu ñu jàppale le président Macky Sall en deux mille dix-neuf def ci lu ne Macky Sall ci liñ ko defal ci jënd caare kaw ñu jige foofu ñëw élection locale yii ñu jël nga xam ne c'est récent yàggul dara même pas mois dugg nañ ci un an sax waaw moom it vraiment am na feneen fu ñu njëkkoon a ne ci responsabilité ba tey waaye yàlla dogal comme moom mag la xarit la mu xam tëraw tamit bi mu am ci ñu ñëw wen suñu loxo ni ñu ko leen waroo dem fenn filmer sa kër ñu ñëw waaye bi ñu ñëwee li taxoon ñu ñëw ak li ñu gis après bokkul ndax fii ma toog tey di wax falaa waxe woon ak ñoom Mati mm-hmm. bi ñuy def négociation que war a ñëw mm-hmm. malgré am na lu ñu doon wax que ne mooy problème bi dox sama diggante moom fekk du problème mm-hmm. parce que sama mag la loolu mag moom ñoo ko teg mu rafet loolu waaye xëy na ñi xamul ñooy wax ndax gis nañ kenn fekkewu waaw ah, mag moom gis nañ ay gis nañ kenn fekkewu ñi bëgg a xam tax na ngay créer ay communication ah, mais nga wax ñu xam voilà léegi nag kon bu demee ba tey ñu am beneen taxawaay non mm-hmm. moom ci ay responsabilités mm-hmm. en tant que mère en tant que frère mm-hmm. warul xaar élage bi yëkkati téléphone am wala un autre personne bi yëkkati téléphone am naan ko dawal wax ak sa booy déedéet ci responsabilité ba tey ndax ñu ngi toll ci responsabilité politique la ñuy wax mooy laaj de gérer la cité te cité bi moo ko war mooy mooy mooy kilifa cité bi pourquoi pas moom ci boppam mu ne mais pourquoi chaque jour sama rakk yi di mer pourquoi sama rakk yi di kaas pourquoi sama rakk yi su saa yu ma tourné war leen a gis du ma leen gis loolu c'est des questions à poser saa yu gëstoo daf ñu war a gis parce que moom moo ma ko wax mm-hmm. dañu toog ci bureau mu ne ma Mouhamed saa yu ma demee ci manifestation bu ma leen gisee sama xel day daal. ma leen gisul sama xel du daal. mais est-ce que réellement le maire en personne fi mu toll nii ci na fi véritablement un base base bu tax ñu naan base am solo. non parce que base xam nga am boo amul base. non néew ma néew ma doo doo doo ma doo dem. mais est-ce que réellement base am na fi man waxuma ay xarit ay am jàmm parce que ay xarit en tant que nit koo xam ne kuy dugg ci nit la mhm. man quartier bi toog nañu moom ma wax ko ko ne ko foo demul maa ngi fay dem mhm. loo xamul xam naa ko mhm. parce que temps bi ma am xëy na yàlla may la temps boobu non pour lui dire vrai l'ensemble amatu fi base politique base politique bu l'ensemble man lii maa ko le futur maire. waaw man mii le futur maire maa téye base bi. ma wax la ay résultats yu palpable. kañ leen jógee ci législative bi. yàggul bi ñu jógee ci législative bi ñëpp xam nañ ne école fii seen dëkk Thiaroye Kaw mooy centre principal bi nga xam ne moom la war a gagner maanaam base am foofu la nekk. te te dafa gagné ci local yi perte ko ci législative dafa gagné ci local yi perte ko ci ci ci ci ci législative yi. kon yaa problème. ba ci salle bi nga xamante ne bureau de vote dañ ko fa gagné. kooku amoo sa base dëgg la. kon loo ci jàngatee à six mois bu ñu ñëwaatoon ci élection locale. kon moom il sera plus maire. parce que dañ koy gagné loolu dara gànnaaw. et bu ñu fàtte politique dafa am lu koy téye chaque jour ma wax ko politique dafa am lu koy téye. ñun faluñu un maire avec un une voiture euh, vitrée boo xamante ne day romb rek dem. voilà boo duggee la boo duggee la ta wàccee sa vitre mu mm. le maire. ça c'est un conseil que je vous donne mm. en tant que petit frère mm. biir jënd caa rek am sa verre dëgg la sa oto nit ñi dañuy daw parce que commune sociale la. Mm-hmm. bul daw nit ñi yow nit ñi xam nañ la sociale ba pare. Mm-hmm. sa mbaa xam nañ ko. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ne mosoo gànk doomu aadama. doon te dërëm nga ciy def nit ñi xamale nañ la loolu. mais dafa am yitte boo xamante ne dafa bokk ci politique. wàccee say vers titré. place boo romb koon ne fin fin fin xam ne monsieur le maire mooy nuyu. ça va da ngeen def daal di dem. loolu c'est un plus. surtout mais bu fekkee blende bi sa oto daf ko vitré. boo rombee ne vive booy génnaan ne vive. dina ci gis koo xamante ne dana ci ñàkk nañ te fekk ñàkk koo yitte entourage am nag baaxul ah. baax boo ko amoon entourage bi mu baax. parce que entourage bee ko xañ du mu am kooku mënoon na nekk président de la république mais ak li ko wër du du nekkaat maire. pourtant pour si bu ko doon voté. tey boobu la am mm-hmm. te loolu la doon woote pour guider réew mi ëllëg. ah lan saa lan saa sax. ah donc ça part de la politique émotionnelle. Mm-hmm. émotionnellement. Mm-hmm. non béy moom. xam nga ñoo nekk collectif émotion doo mën a wax moom laa doon wax xam nga l'ensemble li ko xaw a yàq tuuti mooy dañu émotionnel ko teg ci non sama grand la xam nga ku baax la vraiment dama xamul lu ma koy def déedéet. mais sàmm lii c'est de la politique géwél day wax lu am solo. Mhm. muy kenn du ko lekk kenn du ko naan. Mhm. nit njëriñ lañ koy dee. <laughs> géwél day wax loolu nit njëriñ. nit njëriñ kon ñu ngay wax ni. ñun jidda daf ñu ñaama ah. mm-hmm. ñu xam ci lu bëri mm-hmm. dëgg la ay jeunes lañu mm-hmm. mais man mën naa taxaw ne li ma fi indi wala li ma xam ci ay responsable ci ay politiciens li ma fi dugal ci autorité fii à Djiddah Thiaroye Kao amul benn jeune dama yëkkati sama loxo amul benn jeune bu ma ëpp carnet d'adresse boobu politicien bu ne indi naa ko koor gi passé madame le ministre am fatu sal si gidde ndogu na suñu kër sept fois ba ci bisu lëletu xadre bi mu ma ñëwee tekki fii ci imam Kébé nga xamante ne dañ fay def lëletu xadre boo xam ne mm-hmm. quartier Lansar ñëpp a ko bokk mm-hmm. keroog bi madame la ministre dugg see grand quartier ñu ñëpp a daw ñoom Fodé Niang ñoom Sabé Niang vraiment ko ñu ñu vraiment booy indil la ñu koo xamante ni ñun kii ci télé rek lañ ko daan gis mm-hmm. nga indil ñu madame la ministre kon yow doo ko naan effectivement ak ñeneen ak ñeneen mhm. ñoo xamante ne ñun yamuñu ci te aussi démarché wuñu politiciens yi mhm. politiciens yi duñu ay dox ay nit lañu ah. xam nañ ki leen amal njëriñ lu leer dañuy am ay écho mhm. Lansar laa bëgg a dem ñu ne la Lansar sa waay boo fa bëggee dugg wala Jidda Thiaroye rek yaa am jeune boo xamante ni doon nga cee si kaw. juumoo El Hadj. le mm-hmm. futur maire El Hadj. macha allah <laughs> jërëjëf Mouhamed Lamine le futur maire Jidda Thiaroye Kaw am na solo lool en tout cas euh, merci pour conseil bi nga xam ne jox nga ko notre frère. Mm-hmm. ami mm-hmm. d'enfance parce que moo liggéey waxtaan bi mooy li ngeen di wax ah. dañu bokk Jidda Thiaroye Kaw mu yàgg démb. booba doonagul li muy doon mais xëy na booba yàlla tuddoon na ne dina ko doon kon di ànd ceeg moom ci ngor ci jom ci fulla ci fayda mais pour ñu njëkkanteeg waxtu wi imaam ma am laaj bu ma la bëgg a laaj ñaar benn bi muy sa diggante ak politique ñaareel bi muy ñu gis la bëgg ci démb waa Pastef yi am ndaje mu rëy muñ doon def ñu invité la ci nga ñëw jël ci kàddu wax ci ñu gis ñu jël say wax la nga wax yëpp génnewuñ ko waaye dañoo am lu ñu cof ci wax ji dagg ko am leneen lu ñu koy takkalee ñu koy yàq ba ci avis bi le joxe dañ ko yàq lan nga ñu mën a résumé expliqué yu ko fekk noonu ci ci ci ci sotti boobu noonu keroog. loolu moom dina mën a wax naan sama ñu bari sama woon nañ ma tey gën tëddee ma ma wax waaye man damaa dugg ci place sama kii yooyu man man dama sama mag yoo xam ne moom maa sant ma man ma yàlla ma dama dugg naa ko xàmmee suñu mbir baqal soo ñu xam ne soo ko dana sax borom dama déggee dégg na si ko moom ci suuf maa ngi صلى الله عليه وسلم توفى كنا بنتعقل من نفسي بعدك nag ni ñu defee politique ni may defee politique bokkul ndax man sama politique gi ma ne xaw ma yor usikum bi taqwallahi azza wa jalla politique ma ne ci digal leen ak di ci fexee ne ci ragal yàlla di may nit ñi taxaw nit ñi digal leen lu baax tëral la ñu waaw alxuraan def atamuruna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di digal nañ bu baax dafa fàtte seen kon nag li boobu ci woo ñenn ñi maanaam ci njëkk moo tax ndax séquence bi lay wax noonu maam yu mag bi dégg sa bële am na lu ma ko waxee sama mbokk yu bëri daal di ne ma ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ne doo suñu yaakaar mooy mooy Moustapha xayru xalqillaahi waaw ñun mooy suñu waaw moom mooy yaatu mooy suñu yaakaar waaw moom nga xam ne Moustapha sallallahu alayhi wa sallam li tax tey ñu gën yàlla hmm. yàlla ci moom la ko jaaree ndax bu lislaam ñoom ñoo lislaam daal hmm. ndax moom moo ko hmm. ndax bu ñëpp furqaan lañ fi ñeneen lañ fi moom parce que furqaan ñëwee alquran ñu ñu lépp waaye amoon na tawraat amoon na zabur amoon na tëj ji waaye nag ba ba ba Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bi ci la defal yëpp tegal bi wàcc ñu ko xam na ko tudd islam waaye nag ci biir islam dafa amaat ay niveau ndax alxuraan la ñu mel muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat wal qaanitina wal qaanitat ila axiri aaya maanaam ay niveau la tibbi. da nga nekk jullit da nga nekk mumin. mën nga nekk mumin te doo nekk ku dëgg. Mm-hmm. mën nga nekk ku dëgg te doo ko sañ. Mm-hmm. état état la ko keroog ñu koy jeex. ba tax ñun suñu politique ak l'islam mm-hmm. loo xam ne suñu diggante ak suñu borom. moo tax keroog. ba mu gisee ñu envoyé ma comme Zuma yi suñu kër loolu la waa Ahlu Sunna bi ñu wax. Mhm. xam naa ne nit ki daal alxuraan daal doon naan. Mhm. yaa ngi leen di naan dinaa jaaxal bi na bay bi na bay bi na ba am fata bay. bu def xibaar dikkalee. moom ko bës. waaw ñu jaaxal faasiqun bi na ba am fata bay ñëw. bu ngeen dikkalee xibaar. dañoo ko bës. waaye man dafa doon faatu ko may faatu dina bëri dina bëri dina bëri dina bëri أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبروا على ما فعلتم ظالمين. غير وقت الواحد يقول لك يقول لك يقول القرآن عارف أما اللي يغنى دول شيء في المهاجر وبس نفس الخل دخل دم إن جاءكم فاسق فاسق فايدة يا راسي dina la indi xasa bay ñu nañ ko leer ndax ñun ñu ne sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwaatoon ci jënd di jënd mm-hmm. am njëkk mooy bu ñëwaat dañ du ñëw mm-hmm. kon loolu éventu du ñëw ku dul ñëw nag buñ mm-hmm. lay wax naan bu ñëwaatoon misaal la misaal la da ngay dégg xam nañ wax dina jënd carte muy jënd carte membre xam naa ne passif lay jënd te mën naa leen wax tuuti carte ndax sama confrère bi wax na ko léegi muy ngañ dem taxaw na fii daan na leen wàllum àqee dëkkandoo ba wax leen ko ci olof ma koy fàttali di ko dëgglaatal di ko saxalaatal ndax sallallahu alayhi wa sallam moo teg sama xeet yi lu diis dëkkandoo day doon moo tax mu ne maa zaala jibril yuusini bil jaari xataa zanantu annahu sayuwarrisu yaakaar naa nga démb loolu la wax sànq waaye li ma mën a tekki foofu rek mooy lenn Ousmane Sonko suñu mag la suñu confrère la te ñun diine gi ñu nekk ñun ñun pas pas politique diine gi ñu nekk te ñun diine l'islam gii ñu ne man ci laay faatu man bu dee alal bu ma ko ñàkkee jaral na ma ko bu dee bakkan jaral na ma ko waaye maa ngi leen wax ne. li ma fi a taxaw taxaw ma fi ñëw mooy oustaz ak sëriñ siy toog ci télé nanaan képp ku dem manifestation ba safara nga jëm boo xoo dëgg képp kuy politique mën ngaa politique waaye nag bul fenal islam ndax alquran moo ne audu billahi min alcheytan arrajim inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluun وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم yan alquran lay suñu sëriñ. xam nga xëy na déggin na mooy déggin na mooy carte bi moom déggin na mooy politique charte amul benn parti bi taxaw te doo am da nga am licence ba doo am charte carte mooy droit yi yoon wi nga war a jaar. mais merci mais boo déggee maanaam bu ñu jënd carte. sànq hmm. que mooy suñu yi ma gis ci parti bii di porté. moom sànq yi ma léegi war na ko. man hmm. sànq yooyu. mën hmm. naa ne li ma jàng ci xadis alquran mooy li ma dégg ci sànq politique gu l'islam. mooy imaamul am njiitu maam. njiitu maam. te ah, mooy boobu. maanaam politique bu islam bopp bi mooy imaam maam njiit bu maam te nag ñun ay doomi daara la ñun ñun alquran lañ bokk. sallallahu alayhi wa sallam mooy ahlul quran hum ahlul lahi wa ahlullahi xaas ñun waa alquran mooy mooy yàlla te ñun yàlla mooy sama kon moo tax may leen bu ñu waa doon jënd carte ndax itam mën naa yor loolu mooy. ñëpp gis nañ islam seen bopp alquran xam nañ ne tëfaloon ndax romb na ci tari alquran waaye da koy tafsir waaye nag romb na ci tafsir waaye dañuy def wal mawidati alxasan wa jaadilhum billati hi ahsan den ba buy wax sëriñ sax alquran lay wax ñoom leen fàttali ci alquran ci aaya yi ci yëpp ba ba macha allah moo tax nit ñi mel noonu da nga naan ñu doon am suñu njiit ñun Sénégal bu fekkee dañ ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent musulman maanaam nit ñi da ngay am suñu njiit ndax tamit njiit da cee bokk waxat njiit loo xam ne soo koy fàttali dañ koy mën a fàttali ci li ngeen gëm ngeen ñaar ba dégg jamono kay ne ndax tey Ousmane Sonko bu yàlla defal ñu fal ko ci réew mi mm-hmm. xaay di dundee xaay ngeen xam man maay kan maay kan <laughs> wallaay laa jël dugg suñu borom xel ci réew mi te yàlla bu ko yàlla fal bu ko yàlla falul ba lim ñu woo maanaam nga xam ne dafa beesal charte yu ñu gëmal ñun mooy lakk baax ndax ki ñëw ne leen kees noir dama koy supprimer su ma kër bii ne yëpp dinaa leen voté budget kooku ay kumaanu. parce que alal alal réew kenn ko def ci poos. Mm-hmm. di jox ko la neex di bàyyi ko la neex loolu maanu. Mm-hmm. alal boobu moom ko koy def. Mm-hmm. waaye alal boobu doo xiifal ci jox ndax boobaa li muy jur mooy ku mu am ndey ak ku mu am ndey ñun nag dañu fekk bi ñuy bi ñuy jàngoon ci lislaam mosu ñëw président bu koy aspiré di ko dirigé di ko woote ñu gis benn ndaw ci bokk ci ñun. xëy suba jël drapeau bi këf ko. Mm-hmm. yëkkati ko ba ci kaw. naa mm-hmm. ñu naa ñu seet man sama ma droit rafetloo mm-hmm. léegi nag bu ëllëgee bu ñu waree kooku ñu doon woon man de yëpp soo yàlla ñu maye. na ma defoon Macky Sall lan laa la ñu bokk naa ko taxawal. bokk naa ñu ko xeexal. te Macky li ñu fal ku seetlu Macky 2012. mbokki 2015. mbokki 2014. mbokki 2015. xam nga mbokki 2017 2018 dëgg la. parce que réew mi dafa am lu fi ne. te boo ñëwee ba du sàppee jub jub faw ñu nekk ci diggante yi. parce que xam nañ ne réew mi di Sénégal bis bu duggee xoot ñëpp yàlla def na ci jàmm joo xam ne ak xéwal goo xam ne ak wërsëg goo xam ne da ngay wërsëg man fokk la ñu oto yi lu mu seer seer seer seer wiisul soixante millions xëccoowu muy oto yàlla télégal maanaam su borom def loo defal maanaam mën naa la doon te alqanaa sallallahu alayhi wa sallam daf ne alqanaa kanzun laa yafna doy baa nga weere boo xam ne jeex mukk te nag bi yàlla dafa ñu ko defal waaye xëccere boobu ñu dagg rek laa bëgg a leeral leeral bi ma koy leeral mooy ñun xool naa li ci bari. buñ dee yaa naa juróom. li hmm. ci bari xam naa leen. li hmm. ci bari xam naa leen. Hmm. waaye li ma ca xam. am na ñoo xam ne bàyyi nañ gis nekk nañ ndax waa ji moo dagg rek ñu ñoom lañu gis rek dinañ mën a atte loolu noonu ñun dinañ li tax ñu laaj la ko mooy dinañ jël extrait bi li nga ci wax ba fi nga ko daaneele danañ ko jël dugal ko ci biir sortie bii ñu def nii pour mu leer ni ni yow lii nga wax mais gars yi ñoom léeg lañ dagg def lee moo tax ma ne leeral leen man musuma gis Ousmane Sonko mosuloo toog. waxuma ko du benn du ñaar du ñett tey mooy ñeenteel. yàlla xam na ne su ma ko gisul mu toog yokk ma wàññi. wallaahi loolu xam naa ci dara. bindaay loolu xam naa ci dara. ndax li tax ma ko loolu mooy man gëm-gëm laa jox te yàlla la ma. Hmm. te nag gëm yàlla nag mooy nga gis ku nekk ci lu baax te. bien sûr. man ko wax dama ko jëm hmm. si. daf ne afaman asasa bunyaanahu ala taqwa min allahi wa ridwani xayrun am man asasa bunyaanahu ala safa jurufi naharin fa nahara bihi fi naari jahannam hmm. والله لا يجد الخير ذلك يقول يعني ترى يلو على بالي تقول انت فلاش من نار مثل انا كنت راح طاع كان في لقطه ci article bi ñuy wax. te loolu dina jàkka ya taxaw dund. waaye bañ koy ba alxuraan bi wàcce. pour ñi tabax seen ngir moo xam jàkka moo xam kuréel diine moo xam tarixe moo xam lu mën a doon loolu bu ëllëg ki ko taxawal. ci ragal yàlla ak ci ngërëmal yàlla. kooku jant mm. te kooku jee am fay benn waaye ki nga xam boo ko def ngir intérêt boppam dafa mel ne kuy tabax ci biir dex da ngay bàyyi mu daaw mooy def anhaar bi yaa ciy mokk. mais sa diggante sa diggante tey ak ndaw ñi nga xam ne tey ci biir commune bi da jaaree kaw gis naa fi ay ndaw yoo xamante ni ñoom ñoo dajale seen bopp ñëw wékku ci yow. wékkuñ ci yow pour nga jënd leen ci politique wala mais ci social ak développement bi nga xam ne yaa ngi ciy nekk di ci yëngu moo tax ñu ñëw wékku ci yow. Mm-hmm. koor gaa ngi ñëw leneen ak leneen ngi ñëw lan ngeen nekk entraîné ko lan ngeen préparé wala lan ngeen defaat ci ay sorties yoo xam ne ndax gis nañ ci bu mujj sortie boo fi def mm-hmm. fekk ndaw ñi nga xam ne ay xale yu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw mm-hmm. nga dem dajale leen jënd leen ay peeru maillot mm-hmm. donc seen bëgg-bëgg la waaye nga fekk seen ndax ay moomin la defal leen ko open organiser ci mu yaatu lool xewali saawaan baawaan te loolu yëpp mooy liy lëkkale mbooloo liy lëkkale gox ndax loolu fi ñu ci biir gox bi la xewee ñam ko defal waa gox bi la te waa gox bi ñoo ñoo leen ko defal te waa gox bi ñoo wuyu mm-hmm. ci jaamam bi nga nekk di ko a ndax gannaaw waxtu bi xoj na ñu fukki minute ñu tëj ñu ñu tëj ko yi xam ne ñu ngi ci sa kanam ak social ak développement a foofu laay wax sorti yi ñu na am nañu bees boo waxee da ngay wax niveau activité bi baa ngi jéggi mm-hmm. di leen naan waaye dama waxoon. par rapport ak ay ndax su ma gënoon woon ne Moustapha dina ci ànd. man maa ngi ndax xaw ma sama ko. Hmm. xaw ma baax waaye kenn surut laa xool. Hmm. xam ne surut bi la sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne al muslimuuna ala règlement intérieur yi. Mhm. charte yi jërëjëf. moo ñu tënk ci biir. te bis bu ko wàccee ñu mbéj ko mu wàcc moom. loolu moom la ngeen xool seen. macha allah daal dëgg la. rek laay def waaye nag ma waxaat na beneen ci aspect politique. Mhm. tuuti balaa maa dugg ñun yàlla dañoo suturaal mhm. li ma la wax sànq politique mu génne ci islam mu jeex. te mën naa la def. xam nga ensemble benn extrait laa lay bu ndaw la ensemble national da ngeen gis ñu vote. mais est ce que xam nga ne vote dañuy nax askan wi. ndax vote sa secret président su bëggee réew mi jaar ci yoon. Mm-hmm. mais ñu proposé ngir yàlla benn loi. Mm-hmm. loi bi daa koy ñaan. Mm-hmm. ensemble bi def mbokk fekk def ci enveloppe. ku ne dem dugal sa urne. comme ñun Sénégalais yi ñu koy defee. te ñooy am foofu. te ñun bu ñuy vote est-ce que dañuy yëkkati suñu loxo naan wii monsieur. wala wii noo wala nii woo noo madame. non non kenn ku nekk a dafay dem ba urne yi nga def sa enveloppe. njëriñam. te xam nga ni Ousmane Sonko faraw dinaa ko mën a fàttali ci l'islam bind koy lettre te dinaa mën a wax ak moom. mais mënu ma ko amee Macky. te li tax mënu ma ko mooy bokkuñ jamono bokkuñ dégg. Macky moom ay papa tata tonton moom yooyu français la te man sama français daa sori man fi ma mën a sant sama bopp ay dem. léegi yàlla sax boo ko demoon rek damaa ñu ne yàlla. donte tamit. ñun ñëpp benn lañ mooy monsieur le maire bi ñu doon wax ci moom suñu mag la suñu xarit la suñu nit la suñu lépp la waaye comme lenn li mu wax sànq rek am na loo xam ne buñ ci am toog moom maanaam bu ñu jàppee faaw ñu wax ci moom ndax tamit wa zakki fa inna dikra tanfa'u ndax fàttali da ngeen fàttalante fàttali day dimbali day njëriñ kii gën jëm beneen aspect bi ngay wax mooy ci xale yi biñ fi defal yu passé accord ji bi incha allahu rabbi ñun dañoo fas yéene bokk ci ñi nga xam ne alxuraan daf ñoo digal ñu jëriñ nit ñi. Mm-hmm. alxuraan daf ne wa amma maa yanfa'u nnaas fa yanqus ki koo xam ne yaa ngi ci li nga ci jëriñ nit ñi mm-hmm. di nga sax ci xam. Mm-hmm. ndax ñaan ñi ko koy defal ko. kenn du war ñaan yaa ñaanal te loolu mooy dafa gis ne euh, am na niveau ñoo xam te xam benn mm-hmm. mini xam mini xam témoin mm-hmm. mm-hmm. gisuma xale yu ndaw yi nga xam ne ñoom sept ans six ans gisuma musuma gis seen ko musuma gis luñ leen boole am gis ko am mënuñu boole kon yëf yi dafa mel ne dafa nekk benn intérêt loolu ñu mën boole dañuy defar mbaqus man maano amu ko dama damaa jàpp ne droit bu sénégalais bu mag bett la <laughs> droit bu ndaw bi soo indi. ndax mu laaj la moom. moo tax ba mu ñëwee ma seetlu loolu ma xam ne lii parce que yàlla keroog bañ ko defee tamit gis nga. vétérans yeeg. seniors yeeg. yëpp a génn. anciens ah, yeeg ñëpp. macha allah. oui si loolu waa jàkka ji. nga xam ci laa boobu damaa dañoo julli bëri génn ñoom it bàyyi la war nañoo mën a am. loolu la vraiment. <laughs> te am na yàlla dafa bokk ci lislaam. Ah, dafa bokk ci lislaam bu day jubóole nit ñi. wallaay ndeysaan. waaw ba tax na. comme ñun ñun ñu koy defalee ci làmb bi suñu xool du waaye ñun seen jubluwaay. ak ñun suñu jubluwaay bu góob daal la. suñu jubluwaay retour ba retour ba loolu ñun ñu a a xam tamit euh, lan daan def rek suñu yàlla ñu may dañuy defaat. waaye nag la ñuy def du fii. te duñ ko waxee ba yàlla di leen baal wax di leen baal te xam ne àdduna mm-hmm. doomu aadama mënu ko baax mm-hmm. mm-hmm. doomu aadama dañ koy jëriñu ko war a ñoroo waaye sëriñ Tuubaa dafa wax façon kenn du gis dam abdul wal nasr min arrahman laysa min albidaani bismillah lool ak njëriñ ñu déggee ci yàlla nekkul ci Macky Sall nekkul ci ku weex yàlla boo déggee ma ne nekkul ci Macky Sall mooy daf ne nekkul ci der bu ñuul te ñun ki ñu jiite kan la Macky Sall mooy suñu président. nekkul ci Macky Sall nekkul ci keneen su doon mën kàttan damay wax abdour wa nafru min arrahmani laysa min albidaani wa sudan maanaam gis nga Macky Sall mii ak Ousmane Sonko mii mënuñu ñëw jar mënuñu ñëw wax xëy na liñ seen waxtee ci réew mi ñu def ko jàll keneen ku ñuy jël def waxtee ñu jàll jërëjëf yaay imam am na solo loolu wax dëgg yàlla ndax nee naa nee naa kàddu gi li ci neex mooy fi mu ne fi fi mu koy tënk mm-hmm. ndax waaw sëñ Abdoulaye da ko waxoon ne ne dëgg bu ñu dee tingoom seede ko li muy wax dala koy wax indil la aaya maanaam confirmation boo am na boo xam ne mooy certifié li muy wax euh, monsieur le futur maire message bi ak li ci fakkanam ak kàddu yu mujj yi ñu yëkkatee joxe jeexalee bi d' accord euh, damay revenir tuuti rek ci li imam doon wax hmm. ci leeral li mu doon indi hmm. xam nga réew mi dafa bëri luy wax te xamul te waruñu wax sax. te wax dafa jot nag ñu war ko wax tey wax noonu hmm. ñu arrêté leen ne leen il fallait que ngeen arrêté hmm. parce que xamu leen li wax lan hmm. xamu leen ci réew mi jëm fan la loolu yéen fi ngeen jëm rek ngeen xam fan la mais il faut tamit chemin bi ñu dox jëm ci société kon imam loolu la doon indi ci leeral que ne nit ñi dañoo toll ci xam ki xamul nag buy kontanteeg ki xam réew mi di bëgg a yàq ñi xamul buñ demee ba interpellé ñi xam. surtout ci diine noor kii bi jot na kon ñi xam seen responsabilité mooy ñu taxaw. du ma ci deret ginnaaw bu réew mi yàqoo ñoo ko yàq. parce que ñoom mënuñu xam ba pare taxaw ne ñoom duñu dugg ci lii nga xamante ni ñi xamul ñëpp a ngi ci. il faut ñoom ñu dugg orienté ci ñun. message bi nag sa sànni mooy na ndaw ñëpp xam ne li fi ne yàlla moo ko moom yàlla nag moo ne ku tàllal say loxo ñaan ma ma may nañ ko ñaan mu may ñun soxlawuñu ndimbal li ñu soxla mooy ay accompagnement ku ñu accompagner ci li ñuy def li ñuy def lan la mooy lu baax li ñuy def lan la mooy éveiller conscience su nit ñi ba a ce que kenn ku ci ne xam li la wax ngay xëy di ci nekk il faut ñu xam ne liggéey mooy yor réew du wax moo yor réew nañu liggéey le message est que tout le monde jug liggéey liggéey nag dafa bëgg façon ci nan mën nga liggéey ci jaamu yàlla bi liggéey ci société mais liggéey ci sa kon nañ ko xamee moom nañ liggéey ci société bi liggéey bi suñu bopp waaye liggéey bi doomu aadama donc kon message bi mooy ne ñëpp xam ne fi réew mi toll kenn ku ci nekk war nga jug jël affaire yi la situation bu pays nga jël ko en mm-hmm. Obama bi ñuy ñëw euh, Amérique dafa waxoon lu am mu ne prenons notre destin en main Sénégal mm-hmm. mu ne refusons la fatalité avec son cortège de misère fatalité boobu tey jii ñun war nañ ko refuser parce que cortège de misère bi moo ko divisé ñun am nañu lu nekk tey ñoo fi gën a sonn te li doxal àdduna ñëpp am nañ te ñu mënuñ ci jariñ non kon jot na nag ñu changé jot na ñu xam liy dëgg te ñu wéyale ko doxal ci di kontaan bu baax nit ci kontaan nañ bu baax a lii dafa am solo te am solo li am solo mooy yamul ci ñun ndax Salam Vision li ma la wax léegi c'est international kon tey nga xamante ne yow yaa am bàyyi boole tey ñi nga xamante ne forme nga leen macha allah ba tey ci wàllu média ñu ci def mucc ay nga waroon leen bàyyi yow ñu présenté émission bi te mën nga leen ndax toll nañ ko ci seen xanam waaye nga ne lii kenn doy man rek maa ci doy sama bopp donc maa koy piloté ndax ku tay ku gis émission bi tey xam nga gën nga gën a nii donc kon boo jëlee li la gën a ñaaw kon lii ñun ñoom lañ ñuy wax ne tamit dinañ toogaat ci yeneen jotaay ndax ñu ne le bi nga xamante ne bi ñu yitteel mooy ñu koy lancé te yàlla dara lancé wu ko nag ci suñu cawta doomu di sa caare kaw yëpp a man moo xoj ñu mm-hmm. jot nañu taxawal suñu yëpp bopp te nag li tax ñu bëgg ko taxawal bi lenn lu dul dimbali ñi nga xamante ne soxla nañu li liggéey jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla ndax ñu ngi ciy waxtaan élage bi nii ñu ngi ciy waxtaan ak yeneen ak yeneen mooy li mu wax ne am na lu bëri loo xam ne mënuñu ko wax fii mm-hmm. mais ñu ngi en chemin mm-hmm. te buñ ci yeggee di ngeen ci xam dara incha allah basoa yàlla ko sa borom moo tax dañu yeggale ko ak sago su ko defee xanaa ñu jox aada rek euh, gannaaw gannaaw gannaaw sa euh, monsieur monsieur monsieur le président am na lu mu sàkk wax ko mais kii kii yow nga xam ne c'est le bras droit lan mooy tam li nga xam ne mi ngi seen kanam à part moom li nga xam ne mooy mouvement bi ñu lancement bi lan moo nekk a sa parce que bu ñu ko xoolee tam boo yeesi na ay famille néew moo ci des xam naa ni social moom seen yëf la naturel man ma bëgg ma da kenn ma ci wax dara ñàkkul ni xam naa ne am na lu ngeen dëgg ci biir fii ak koor bi ñoom xam naa ne dara mu doon naan am kàddu yu incha allah sàmm liñ defal dund di la jaajëfal wante ñu sax di jaajëfal imam di ko waxal ni nañ ko nañ ko bàyyi xel ndax imam moom mooy jëmmi social à vrai dire quoi mënuñu mënuñu di wax ci moom lu bëri ku baax a ngi ku baax a ngi encore une fois ñu ngi lancé appel encore encore à l'endroit de la jeunesse à l'endroit du président de la République encore une fois di ko wax ni wala ko di ko ko fàttali ni président eh, dafa doon suñu jiite waaye mu doon jëm ji yor ñetti maqaama président dafa yor président di ma doon dégloo benn borom xam-xam laaj président dafa yor ñetti maqaama maanaam dafa yor li ma koy waxatee sax dafa yor wilaaya président yor na yor na yor na nan la ko doon waxatee yor na yor na yor na wilaaya tey yor na li ma laa koy wax yor na maqaama. yor na yor na mhm. euh, daraja encore une fois. tànneeku suñu borom yor na tànneeku daal suñu borom. Mhm. moom rek kay toog ëllëg di layoo. Mhm. suñu borom di ko laaj ana naka nga yore woon ni nga ni ni nga jëfee encore une fois. tey jii bu ko neexoon lii doon. tey jii président mooy toog ku ko neex fal ko. tey jii président daal moom mooy doxal lu ko nekk ci ci ci ci baatu mm-hmm. di la rappeler encore une fois le sens de la responsabilité bi nga yor. Mm-hmm. ndaw di la fàttali nga yërëm ñi nga jiite te nga yemale ñëpp. Mm-hmm. muy ñu bokk ci fekk ñu ñu bokk ci opposition bi encore une fois. dernière question bi ñu ci mujjee tontu imam junj na ci incha allah euh, dinañ ci def ndaje yu waxaat yi ñu jëmale encore une fois waxaat ci programme bi bu baax a baax xam naa yi fan bi ñu encore une fois bu ñu ci programme bi dinañ la woo ñu ci